di wax ne ni nga ko ubbee rek mooy gisam ñaari jàmbaar yi muy Serigne Touba ak borom Darou Mouhty gannaaw bi nga xam te ne Serigne bi ne ci géej gi te ba teewoon borom Darou Mouhty gannaawam euh, bi mu dellusee tim yàlla dogal na moom mi nga xam te ne mooy Serigne Touba bi mu demee am na ndam. bi mu dellusiwaatee te fekk na borom Darou Mouhty lépp loo xam te ne moo doon taxawee ci njaboot gi la ca Serigne Touba moom yaakaar yaakaar jooju dara yàkkiwu ko wucce kon moom it am na ndam te loola. kon daal bis bi bis la boo xam te nii bisum ndam la. ñi ko seqoon muy Serigne Touba ak borom Daaru Moxti kenn ku ci nekk ndam la nga doon wuti am nga ko kon alhamdulilah rek la ñu wax. Ah, yàlla ñu yàlla tas ci seen barke te fayal ñu Serigne Touba fayal ñu borom Daaru Moxti te ñu jàngate ci lu bari ci de sëriñ bi ak dogoom ak bëgg yàllam ak taxawoom tax na maanaam mission bi mu doxoon mu réussir ko waaye nag borom Daaru Moxti ci jomam ak ngorom ak euh, njàmbaarteem tax na moom mission bi nga sëriñ Tuubaa batale woon mu réussir ko kon nag euh, sëñ Moussa dafay mel ne euh, li ci wax bari na conférence yi conférence nañ euh, diwaankat yi diwaan taalibe yi wax histoire bu nekk nettalees ne ko ci waaye kenn du ko jeexal li ñuy wax daal mooy borom Daaru Muxti daal kenn la kook ci sëriñ Tuubaa kenn du moom hmm. ndax yoonu murid tey bu demee nii gannaaw yàlla jàllee damay wax ne baatin bi de sëriñ bi la. waaye nag saayir si Cerno loolu nag kon nun ñi nga xam ne dañoo bokk ci moom dañoo war a fexe ba nekk ay modèle yoo xam te ni tey képp koo xam ne borom moo Muxti daan ko roy daan ko dégg daan ko naw war ngaa fexe ba kenn ku ci nekk ci nun ku ko gis te nga bokk ci moom jeexital jooju di feeñ ci yow. jeexital jooju nag nan lay feeñ ci yow mooy nga doon borom ku am eh, njàmbaarte ku am aw ku am xam-xam ku nangoo jaamu suñu borom koo xamante ni ku nangoo liggéey nga ndax borom daal moo ti loolu ko sëñ Tuubaa santoon mu nekkoon ca ca ca la nekkit ba ni fi bàyyi ko mooy nangoo liggéey jaamu yàlla amu fit yar jàngale loolu ñëpp xam nañ borom daal moxti ci loolu ndax bari yaa na tey yoonu murit koo fii dégg tey mu raw fi génn loxoy Ceerno Birahim bari yaa na tey jii koo dégg tey ji ñu ne la yoonu murit maanaam ñi ko ciy naw yaru borom daal moxti la te loolu la Sëriñ Tuubaa waxoon ne damaa bëggoon yoonu murid yëpp mel ni borom Daaru Muxti bi ma tàmbalee ci Ceerno yem ci moom yàlla dogal ma bëggoon ñëpp mel noonu tubaab bi yóbbu ma ma galfan ba ma bëggoon ci borom Daaru Muxti murid yëpp mel noonu aw ma jot mu mel noonu kon modèle borom Daaru yoonu murid mooy Ceerno ba dee wàllu baya day mën ngaa wax ne 40 kilomètres yoo xamante ni nii jamono booba fas amut tracteur amut dara amut te benn tool dawul booy ñu ko daan bay fii di ko yóbbu njaareem bokk teeg maam lépp loo xam si lu sëriñ bi daan dundee la loolu njàmbate borom daal moxti la muy la tàmbalee mbakk Kajoor ba beleel dawul booy ci jamono booba te maam ab liggéey melutoon nii boo ko ñaaree mooy aw fitam mooy ko sëriñ bi tubaab bi yóbbu say mag te tubaab bi ku mos a yóbbu doo dellu si ngay ndawul 30 ans ñi ne 32 ans taxaw mën a dékku loola taxaw xaar sëriñ tubaa loolu aw fit mënu ko weesu maanaam ak dogu it mënut a weesu ci ki dem sama dana dellu si war a déet nga taxaw garanti léppam taxaw ne maanaam incha allah bii ne fii mu ngi dellu si danaa fexe ba xaddu damm dara du am ba këram muy dellu waat waaye du ma fekk mukk li ma bàyyi turam ma defoon muy laaxaan kon euh, loolu mooy modèle boo xam te ne nii borom daal moo war a roy moom lépp loo xam ni jikko doon joo te ni nit da koy soxla ci àdduna pour mën a dem dëkk bi itam gis nga ko li mu doon tar tar tar tar tar coow mar coow lépp lu mën a doon daana wax ne bala fee nit dugg sama jàkk ji faw nga jàpp dooru dugg loolu gëm yàlla ak doyloo ko munta nen munta munta weesu loolu bëgg sëriñ Tuubaa it munta weesu keroog bi sëriñ Tuubaa wàccee ab liggéey ba mu ko dencee la ne duutu ma ne kenn asalaamaaleykum waaleykum salaam rek laay koy laay waxati sama mag ju baax ji moom ma ko jaroon te nekkatul ci àdduna te noonu ma ko waxoon noonu la ko defee ba ni nga xam te ni noonu la demee bayti Mahmoud maam niwatul kenn asalaamaaleykum euh, sëriñ Moussa borom daaru daal mooy kenn kok kenn la ci yoonu murit kok sëriñ tubaab sampam xer la boo xam te nii mooy sëriñ bi sëriñ bi moom boo bëggee gis kat mooy sëriñ tubaa xoolal borom daaru moti waaye boo bëggee gis ku borom daaru moti xoolal sëriñ tubaa ndax sëriñ bi sumi ko ci moom ba mu jeex tàkk maanaam du ceernu sëriñ tubaa la kon yàlla nañu yàlla taas ci barkeem te nu ñaan ci kat nu yàlla ak màggu sëriñ tubaa daal képp koo xam te ne ñëw nga fi te indi fi jàngoro jàngoro joo fi mën den yàlla na ko suñu borom saafara di ci kattanu yàlla ak màggu Sëriñ Tuubaa xemmem téef bu fi doomu aadama indi rek na ko yàlla dogal ñu def ko noonu ci mboolem ñi ñëw ñëpp yàlla na leen suñu borom delluwaat ci sago te defal leen jàmm ak xéwal sëriñ ba Basiiru mii fi nekkit di xalifa borom Daaru Muxti ne ko xalifaam yu jiitu woon ñu ngi ñaan saa borom dotti yërmaane ci ñoom moom mii fi nekkal borom Daaru Muxti it suñu borom taxaw ko jàppale ko ba naal yim naalal borom Daaru Muxti yépp mu eggale ko te mu ànd moom te ko ci sagoom di ñaanal taali bi yëpp yàlla defal leen ndam ak jox leen ay ndam jox leen xéwal ma mën a liggéeyal Serigne Touba waaye jox leen xéwal bu mën a liggéeyal borom Darou Mouhty yéen ñu di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal ba fépp foo xamante ne nii ab organe egg na fa rek yàlla na fa bii bokk ndax jumtukaayu Serigne Touba la njabootu sëriñ tubaa la kon yàlla nañ Serigne Touba teg loxo jàppale leen sàmm leen ba fi ngeen bëggee egg fépp ngeen egg ko